nañu fàttaliku engagement Serigne Abdoul Aziz Al Amin ci ni mu ko daan defee bu gàmm gi dee jub si kàddu ya muy sànni pour ñu waajal gàmmu gi bu ñu demee dugg ci gàmmu gi kàddu ya muy sànni pour ñu gën ci taxaw buñu démé ba gamu gi jeex kàddu yamuy wax pour sante ko nit ñi gërëme len ko ngir xamni ki ko sos dafa am lu mu yéene nit ñi mu di Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala an ñu bokk ko gi yéen bokk ko tabarakallah njabot yi nga xamni duñu sonn mukk ngir wuyu bu ñu leen woowee ci lu mel ni ñoom it ñu ameel leen euh, njukkal ameel leen cant waaye ñu ameel leen ñaanitam itam fa tabaarakallaahu ah sama yonent laa ko tudde ku ne sañ na ko waaw lii nag ki nu ko may ba tax ñu di ko def mu di Cheikh El Hadj Malick ameel nañu ko retour bu ñu dul mën a euh, fay ba mu jeex koo xeebal métier am tooñ ko rawatina nag mu di wàllu technique bi ngeen xam ni moom ngeen ame tey fu suñu waxtaan àgg c'est c'est grâce à vous yéen ko fa àggale ngir rekk tabaarakallaahu seen métier la kon yal na yàlla barkeel ko

boo de perfection perfection la ko yàlla santoon mu ba dem au-dessus de la perfection moo tax mu mérité wa innaka la ala xuluqin adima waaw bu ko deful woon du ko mérité mukk